lii nga xam ni conseil constitutionnel jël na ko keroog comme décision muy samedi le 20 janvier génne décision buy consacré publication wu list ya nga xam ni mooy listu candidat yu war a joŋante ci élection du 25 février 2024 ñu dindi si sunu turu candidat Karim Meïssa Wade loolu ñu ngi koy bañ di ko dénoncer. mais nag loolu yëpp ay jéem la jéem bi ci mujj wax nañ ko mooy le 20 janvier 2024 te lu ko lal mooy pexe Amadou Ba bi nga xam ni c'est nen incapable ñemewul ñemewul ñemewul jàkkaarloo ak Karim Wade moo tax muy def ay pexeem pour bañ a bëree sunu sunu frère Karim sunu frère Karim Wade dafa juddu judduwaale nationalité française jële ko ci waajuram mais mësu ñaan mësu ko laaj noonu la àdduna du doxe moom nag dafa wuteeg ña nga xam ni ñii ay kilifa lañu ay responsable lañu bokkoon ci nguur yu toppante yi ba ñu amee indépendance ba léegi dañu seetlu ni ñoom seen ay soxna suñu ëmbee ba diis ba toll ci diggante dañ leen di yóbbu bitim réew pour seen doom yu fay juddoo yi am yeneen nationalité Karim Wade bokkul ci ñooñu